Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV Sénégal 4 TV man maa duggaat ndax dama am jàngat ci yaay Marème ndax nee na Assane bi mu ànd ak imam bi ñëw di dugg ci kër gi di balu si àq nee da ko seen rek ni ko bu yegsi hmm. mu ni ko neena imaam bi ni ko day jéggalu ci mu bàyyi ko mu ñëw mu jéggalu ci yaay mareem ni hmm, mareem gisul asan bi asan ñëwee ci kër gi neena ko yëgul ni tax asan ci kër gi moom la fekk mu toog ak moom ak imam bi mais Marème yëgu ko mu balu àq nee na mu gunge leen moom ak imam bi bañ sori mu doog a ñëwaat waa diglu leen diglu leen bu baax dooy baan évité jëkkëru Marème mu wax ni mook ma dañ doon déggante téléphone nee na Marème ko Assane de mu ngi ci saal bi mook sama yaay ak benn imaam daa ñëw pour jéggulu si mu ni ko ah mu ni ko waaw yaay asan yaay maram ni asan bi mu dugg ci kër gi yëkku ko xamul fu aw waa dugg te asan bi ko xaritam bi seetee prison nee ko nii laa romb bu dugg ci biir kër gi bi may dugg jël ma woon décision rey moom demee ba ca biir ana lan moo xew ma tax Assane lay lépp ci biir affaire bi ruur na ku ci wax waxal loo xam ma ne jàngal laa ci am rekk mais xaw ma ci dara hmm, yàlla rekk moo xam dëgg gi te moo xam yal na yàlla leeral lii nag moom def ñu yee bu baax a baax bu dee nag ku yeewu. Sénégal yi nag dama seetlu ci ñoom bis bu mbir amee ñu ni aleen teg peine de mort dëgg la ay sart la yoo xam ne yàlla moo ko dogal ci ñun muy lan jullit day julli julli day julli julli juróom di weer wooru koor di natt asaka di dem màkka su ko mënee teg ci ne ku sàcc ñu dagg sa loxo ku njaaloo ñu dóor la juróom ñetti fukki at ku rey nit ñu rey comme ko yooyu xaaj bi lañ ci def xaaj bi def ñu ko ci tey ku rey sa mbokk rek nga ne nañ def peine de dañuy seet suñ diggante ak boroom nañu hm, seet suñ digganteeg suñ boroom ñun ñëpp e ay fekk ñun e ñëpp ay dem xulil xaq walaw kaana morlan waxal dëgg donte dëgg ki sa kaw lay daal pare mu ñëwaatee ci kaawu Assane ba léegi cees affaire bi dafa dafa doy sax moo tax bu fekkee yow da nga ne émigré nga nga nekk góor xëy na sa famille ñàkkul kenn dina la si jege jege gi nga xam ne xanaa bañ inversé mën nga jaar ci côté pas ngay jaar ci sa gel bi nga xam ne si ni xamoo di nga sëy ak moom xamoo doo sëy ak moom fii góor gis nañ fi jigéen di financé góor guddi ak bëccëg borom kër ñëw jël ko yóbbu parce que xamul tax kooku du jëkkëram. xëy na kooku du jëkkëram gis nga nit ku fi nekk sa borom kër yàlla bindal na la ko ba pare allah kulli liñ naan dañoo xamul rek moo tax ñuy tëb di dal mais si xamoon ku ku gunge ci sa yoon boo jugee téye ci loxoom ndax nga xam ne kii la la yàlla boole mais génn naa ak nit ki nekkul sama borom kër wala génn naa ak nit ki financé naa ko nekkul sama jabar rek taxul ma koy tuumaal wala may yàq daram may egg ba ci di jël ba kanam te pourtant boo déggee moom jëkkër ji ne ne ko. laaj ma wax ma ñaata la la yoreel nga wan ma ay preuve pour ma fay la ko kon xam nga jëkkër ji pare woon na pour fay xaalisam te boo déggee seen problème bi fu mu commencé ba fu mu yem tamit yaay Marème jaañ am na ci part de responsabilité parce que am na yoo xamante ni dama naan ci parents yi la nag euh, ci waajur yi ndax wax fa dëgg yàlla. Gilles macha allah yow tamit li nga wax ah, dara du ko tindi ndax imaginer ngay dund ak jigéen mu bëgg la jigéen ku lu jug ba jox ko boppam rek kooku bëgg na la forcé woo ko liggéeyoo ko drogué woo ko defoo ko leen ndax mu jox la ko ci coobare boppam waxtaan bu juboo rek moo fay am mu jox la boppam bu la joxee boppam desalatu la dara ci àddunaam jox na la lekk parce que jigéen amul dul boppam nga mën a dund ak moom ba egg ci loolu nga jël bo nga ëmbal ko na ngeen ma jégal ci kàddu gi. bare na ko bu ma bu ma ci tudd ndax sam papa turam dafa rëy te bugguma yaax te bugguma ñu ne ko sa doom di de mais est ce que yow nga xamee si nii sa waajur bu jigéen bala ngaa séddi cër sa waajur bu jigéen est ce que yaa ngi séddi cër sa bopp ba pare ndax dama naan nit ki soo bëggee ñu respecté la da ngay respecté sa bopp ba pare tey moom li mu doon calculer pour ay waajuram verse na ko parce que moo tax àdduna yëpp yëg nañ ko ndax bu fekkoon na bàyyi na ko ba mu am doom si jàmm xëy na Thiès la yëpp ñu bëri biir Thiès duñ ko xam xëy na koñ bala wala mbokk yi mais léegi àdduna wër ngir ñépp xam nañ affaire bi demee mu mel ni que mu ci doon bañ ak lim ci doon nëbb yëpp maara day taali léegi àdduna xam nañ ko yàlla ci musal te pourtant mënu na foofu xëy na ñi ci sës rek ñoo koy xam mais tey ku ko xamul amul ñëpp xam nañ ko ñëpp dégg nañ ko yal nañ ci yàlla musal li ñuy wax naan toujours nit ki booy ñaan na nga ñaan sutura ndax sutura daal ci la lépp xaj sutura moo ëmb lépp yi àdduna. waaw Ami dégg naa li ma wax. waaw affaire Maram Diagne waxuma ne kooku dañ koo tooñ ko ma dama ne li ma dégg su fekkee la naa su la man naa ma ñu maa ngi baasiwu ci bu dee dëgg la nga man toog téye sama téléphone di déglu nit ñi di wax rek laa ci am mais version yi ma dégg nit ñi wax su fekkee dëgg la moo tax mais dañ koo tooñ waaye ni mu fayoo moo jaaduwut mooy xaalis boobu ñuy wax xaalis bi moom su fekkee dëgg na madame nu mu tudd ndaw si doon na ko jot te pour dénk ko la woon dénk ko dénk ko la ndaw si dafa gëm gëmloo Assane ne papaam da koy dénk xaalis denc ko xaalis dafa am compte loolu waral Assane dénk ko loolu waral Assane daan ko dénk xaalis mu koy dencaale ci kontam loolu ñu dem ba ñu dem ba mu yàgg Assane dégg na ndaw si am na jëkkër maye nañ ko mu ne ko kon comme noonu la demee sama xaalis bi ma daan dénk jox ma ko dama koy soxla ndaw si bañ ko koy jox loolu laa dégg nit ñi di expliqué su fekkee dëgg la moom moo tooñ ndaw si tooñ yemu ci bi ko Assane menacé moor na ko boo ma fay sama xaay bi dina la rey dafa dem porte plainte Assane Assane yi dem dem police di porte ji pour mu fay ko yàlla def ñu fekkante fa ñun ñaar ñi téye ko fekk avant loolu gars yi demoon nañ kër ga yu plainte bu këram fekkuñ ko fa ñu fekk fa yaayam jox ko yaayam parce que yaa ngi dégg yaayam moom xamul li xaw yëgul ne Assane ci dëkk bi. yàlla def niñ dajee police police téye ko nekk nu wax ndaw si ko soo ko baalee ñu bàyyi ko bu dem soo ko baalu léegi njàlle ko ndaw si ne baal na ko est ce que yaa loolu la waral ñu bàyyi ko ba pare biñ ko bàyyee ci lañ ko aaye kër ga ne bu mu fa dëgëri tànkam bu mu fa demati bu mu woowati ndaw si bu mu ko xoolati gannaaw bu loolu yëpp amee te yow leer na ne yaa ngi te leer na ne yaa ngi yore nit ki 3 millions bañ ko fay. parce que sa jëkkër am na doole wala jiitu nga ko police porté nga plainte gars yi menacé nañ ko yooyu su fekkee xaay bi nga xam ne Assane dëgg la xaay bi Assane di tudd su fekkee dëgg la dafa beneen la apart na moom layal lu yëpp mais li sama xel ñaaw trop te mënu ko nangu mooy jënd xale boo xam ne 35 ans nga jënd moom lu mat 5 ans xëy na fu ñu dem di sëyal paa boo xam ne 60 ans yi teg na loolu lu lu luus la loo xam ne nii ku nga xam ne lii du sëyal te tax. lu luus la xool ni boo nee kii yàlla mu sëy xel xel ko du yóbbu. waa yi nga xam ne moom ku si nekk ni nga ko déggee ak ni nga ko gisee rek nga mën a jàppee ndax nag ku ci nekk yaa moom sa ngëm dëgg yàlla mais Adama est dina génn ak nit bëgg ko lool mu leer kii jël na engagement pour sëyal ko te yàlla rek war nga mën a tournewaat gis leneen lu fee sa bët ba nga war ko fii mun a bàyyi te ma Mariam Diagne moom am na jëkkër lu yàgg te waxu ko Assane madame Ndiaye am na jëkkër ba ëmb ëmb 3 mois te Assane yëgu ko et pourtant ñu ngi continuer woon déggante ak moom xam nga loolu tamit ba tey kaala yow nan ngay amee jëkkër di dund ak sa jëkkër pare continuer di nekk ak sa ku góor gi mi ngi jàpp ne kii la yow yaa ngi ko jàppee sa ex copain parce que pour yow nekkatoo ak moom te bu la wooyee yaa ngi koy wuyu bu la yónnee xaalis yaa koy jël léegi nga bëgg ko jàppee benn lan comprendre ma parce que nit ki bu fekkee da ngay génn ak moom mu leen yow bëggatoo ko amoo ay sentiments moom war nga ko mën a teel a waxuma la bala nga am jëkkër war nga ko mën a teel a arrêté sa diggante ak moom relation mu taxaw waxuma la nga dem nag ba am jëkkër tamit doo comprendre nga continuer di ak moom jàppee ko sa ex moom mu jàppee la copine parce que pour moom relation bi ngi fi bi mu demee di ko woo jotu ko di ko woo jotu ko. parce que dem na ba toll si moom di ko def profil mi ngi jàpp ne gëram lay def profil fekk jaww jàng mu lay def profil côté boobu tamit a métti mooy ngay dunda koo xam ne bëggoo na moom bëggoon na Assane Ndiaye moom moom bëggoon na ko mais dem na biir bëggatu ko na ko teel a libéré ak ab lak am xaw ma nag xaalis bi dëgg la xaw ma dëgg mais en ak lu mën a nekk moom doy na waar torop torop torop yow xam nga ne senegal ni mu bindoo fii nekk bitim réew yaa xam fa man ne maanaam di liggéey di jox seen mbokk yi ñu dencal la nga pare am ci la nga bëgg lu jafe la fii trahison yi gars yi wax yu si bëri mbokk yi ñoo dàq trahir fii fii ku la moo dàq trahir yi jàmm leen yéene rek waaye yéenuñ la nga am de jàmm leen moo fa nekk daal xamal yow mais xam-xam moom bëgguñ gën a fenn Sénégal fii lu la fi def lu la fi def moo fi nekk de mbokk yi dafa bëri ñoo xam ne ay trahison ay trahirkat lañ bokk yu bëri bëri nekk xaalis nit dañ koy lekk kon su joxaay ba léegi nag su fekkee sa famille da nga dem ba xam ba mu leer na wóoloo fa kenn ah su boobaa da ngay mujj obligé seet keneen ko wóolu te lu wóolam jaay nee na ko bàyyi sa mbokk dem ci mbokk jàmbur te ku dem si mbokk jàmbur suy waxtaan jëlee dañ naan la may ñu ñu waxtaan loolu la fa demee Assane nag mën naa am ko dal loolu jub na ci moom waaye mën naa am amaana lu tax Assane bàyyi famille ñëpp déggu ci kenn xaalis dem dégg mën a jaay xaalis ñaar ak Assane waa famille wóoluwul leen benn ñaareel ba madame Diagne wan ko wan na ko wan na ko confiance pour tax mu wóolu ko ba dégg ko xaalisam te delluwul ko ko dellu confiance ba ba ko delluwul ko de si kaw nag bu fekkee loolu dëgg la li wax nag bu dee dëgg la bu dee dëgg la. waa léegi xale bi nga xam ne euh, xale bu jigéen bi am 15 ans far bi ëmbal ko ba pare rey ko léegi Adama foofu ndax mbëggeel mi ngi fa woon. ndax mbëggeel mi ngi fa woon ndax pour man ngay ngay génn ak jigéen hmm? nga waxtaan ak moom ba déggoo ci kàddu mu jox la boppam nga mën koo ëmbal ba pare ne ko bu ma bu ma ci dégg bu ma ma ci tudd waa léegi yow jigéen moom boo ko ëmbalee ba pare moom boo ko ay waajuram waxee wala moom bu taxawee ku muy wax moom dafa dafa ñëwee dem di wax keneen mu ma ëmbal wala day jël doomam def ko jox ko kenn beneen baay bu dul bu dul baay bi ko jur léegi nan ngi ëmbalee jigéen pare taxaw na ko bu ma ci tudd ba tax nga di ko rey est-ce que foofu mbëggeel mi ngi fa woon est-ce que foofu amour mi ngi woon waaye est-ce que foofu yërmande mi ngi fa woon te dama jàpp ne mbëggeel yërmande la ak cofeel gu fees del mais est-ce que na ko pour man daf ko nax daf ko nax di ko nax di ko nax ba am ko tax mu ëmbool ko pare xaw ma ëmbal xaw ma ba pare ni ko bu ma ci feeñ parce foofu loolu mbëggeel la woon man man comprendre ma sax man man àdduna bi li fi nekk man dama yaakaar man lii doon góor sax moo ko doon góor sax moo ko gën fu mu toll nii